yàlla man la foofu nag sincèrement si jàmm laa nekkoon sëñ Moustapha dama dugg kaso bi nga xam ne dafa fekk ay samay nawle ak ay gor mhm. ay nit yu baax la fekk ma bokk ak nekk ay nit yi xam ne dañoo ñëw wan man dañ maa naw fonk ma mhm. ràññee combat yi ma nekk dañ ma doon yëkkati sax man su ma gàttoon xel naa yaakaar ni buur la euh, mosuma fa liggéey mosuma faa fóot mosuma faa bale mosoo faa sax tàngal lekk mosoo faa teg ataaya lépp lu ma soxla su ma su ma ko waxul sax ma ndax bëggoo nangam wala ndax bëggoo nangam te ñun samay samay xaritu détenu yi may bokkal nekk ñoo ma koy defal. Mhm. donc kon j'étais dama amoon benn benn estime bi nga xam ne dont je ci laa gën a yëg ni naka te xeexal yàlla te xeexal dëgg kese mooy dëgg. ndax mhm. sooy xeexal dëgg te yàlla tax yàlla mooy mooy mooy jàpp jaamu yàlla yi war leen leen kii seen nit leen lay liggéey ñu mën laa ñu mën laa fonk. Mhm. donc man là-bas vraiment euh, occasion pour moi d'avoir un recul donc euh, dundeewu ma ko comme fitna. Mhm. dundeewu ma ko tamit comme comme châtiment dama ko dund comme benn épreuve comme benn benn mëst bi nga xam ne mën naa ci jaar yokk samay maqaam sama diggante sama borom. ndax lan lan moo la fa gën a marqué. Euh, li nga fa gën a marqué mooy jaamu yàlla ma fekk ci biir kaso gi. Mhm. kaso gi ñu bëri ñu ngi koy xool jàpp ne ay malfaiteurs fa nekk ñëpp a ngi koy présenté comme ñi nga xam ne c'est de délinquants de des des des truands des des assassins waaye euh, la réalité euh, de la prison est tout autre. Euh, foofu di ko fekk ñi xamee ay taalibe lañ ay jaamukatu yàlla soo xamoon ñaata kaamil la ñuy wàccee chaque jour ci biir kaso gi ñaata kuréel mooy am chaque jour ci kaso gi yi nga xam ne ñu ngi jàng xasida suñu mag yu tedd yu nekk ci biir dëkk bi ñaata dog la fa di ci di def chaque fois mu wax ne foofu amul boîte de nuit amul baar amul prostituée maanaam lépp luy ay moy ak ay tooñ yi xam ne mooy lëndëmal euh, adduna bi amul si biir kaso boobu kaso bi c'est un environnement éminemment sain un environnement pur à telle enseigne wax dëgg yàlla boo fa duggee li njëkk frappé mooy ah nakate cette la spiritualité et aussi danse dans cette prison là mm-hmm. donc euh, wax dëgg yàlla moo marqué la yàlla dafa ma defal taw féex nag jotaay yu bëri euh, muy mbokku taalibi tijaan yi yoo xam ne malheureusement ñoom chaque vendredi que suñu moon pour mën a def xadara sama mbokk jullit yi nga xam ne tamit chaque jour presque wala chaque deux jours amoon ay kuréel yi xam ne dina mën a am ci biir kaso bi moo xam fulku bi la jamono fulku bi la woon wala bokk ay kuréel sax ci biir mhm. mooy chambre bi nga xam ne mooy ni mooy chambre bi ëpp spiritualité ci bi ñu wax chambre 38 chambre la bi nga xam ne xanaa feesu loon bëriwoon ay nit euh, presque une vingtaine ans mhm. mais mooy chambre bi nga xam ne dol dol yi nga xam ne sax ñuy jàngee ci biir prison bi yëpp sax siège am chambre boobu la donc chambre boobu dañu doon am kuréel ñun chaque jeudi soir toogandoo suñu biir néeg sans aucune contrainte sans permission dara toog mën nañ toog jël suñu temps jàng suñu ay xasida du ñu neexee donc c' vraiment de majestueux moom sa benn image bu génnoon ñu wane ñi jàng euh, xasida nga toog ci wetu kuréel bi ni am ku la filmé ne professeur mm-hmm. après image bi fuité ndax loolu jotoon nga ci bi nga nekkee ci waaw si si je l'ai je l'ai vécu mm-hmm. dans euh, bi li xew ndax euh, dañ la ñoo ragaloon parce que en matière juridique. Mhm. Euh, image yu doomu aadama mënoo ko jël filmer ko. Euh, mhm. génnee ko euh, sans mu neex ko. Mhm. donc y avait la loi prévoit des sanctions de réparatrices ci wàllu xaalis mais tam prévoit tam des sanctions pénales si ñi nga xam ne ñoo ko def auteurs yi nga xam ne ñoo ko def sans ton consentement. et donc bon j'avais décidé de ne pas poursuivre ñi ko def ni de ne réclamer aucune réparation ndax wax dëgg yàlla gëw mën dañ ma dañ ma porter préjudice au contraire sëñ Moustapha dama jàpp ci kaso gi bokk naa si nit ñu gën a tuumaal Sénégal ak leen sosal bëgg a gëmloo tout le monde kii dafa bañ yoonu murit waaw ci fànn boobu sax ah, wala kii dafa bañ Sëriñ Tuubaa wala kii dafa bañ suñu mag yu baax yi mm-hmm. donc euh, lii nag ñi ko doon def xam nañ leen ay saay-saay la yoo xam ne dañoo làqu ci biir yoon yi képp ku leen di signaler ak di leen di leen wane di wane li ñuy def nii méngool ak jàngale kilifa yu tedd yi di jéem a xool la diaboliser pour ñëpp bañ la man fekk naa ci kaso bi ñi nga xam ne ñu ñëw ne ma baal ma ak Cheikh Oumar lu tax ma la war la baal ak man yàgg naa wax lu ñaaw ci yow dara ma doon dégg lu bon a bon ci yow même la rencontré laa xam dañ ma doon nax man la jéggal naa la ndax ku ñu dul nax ci nit amul yonent bi sallallahu alayhi sa am ñu koy tumal yàlla subhanahu wa taala sa am nañu koy waxal lu ñaaw donc je peux pas prétendre am li nga xam ne ñu baax ñi amuñu ko waaye dama gis ni image boobu dafa ñëw répondre euh, à ces à ces à ces gens xam ne dañ doon sos jëmee ko ci man ndax toog bi may toog ci kuréel mhm. euh, c'est pas une obligation man lay neex ma toog si kuréel à la prison on n'oblige personne mu dem toog ci kuréel on n'oblige personne mu dem toog ci bërëbu jaamukaay yàlla donc bu bañ sëñ Touba wala quelqu'un bu bañ euh, jàngale sëñ Touba wala ko bañ ay xase sëñ Touba gëmën na dem toog à cœur joie di consommer ak mbégte euh, xaste yi xam ne sëñ ko bind man la wax ne sëñ Touba sama sëriñ moom ma ko njëkk joxoñ ndax man taalibe Cheikh Ibrahim Niass la alkawlaxi bàyyi daf ko def dafa def référence ci sëñ tubaa en matière littéraire euh, di ko di ko di ko tagg ab ay bëytam bind ko ci téere mu bind tuddee ko ruuxul adab donc man gëw ma ni ce débat malsain bi nga xam ne yenn faussaires ñoo ko bëgg teg Sénégal genre diw daa bañ sëñ bi diw daa bañ sëñ bi fii amul ku fi bañ sëriñ yi euh, ba ci ibaadu yeeg ñëpp amul ku fi bañ sëriñ yu mag yi peut-être am na nag ñu am jafe-jafe ak ñi donnu sëriñ yooyu wala sëtaatu sëriñ yooyu mm-hmm. yenn démarche ak pratique yi xam ne ñu ngi koy def